أكرهته بخيرا أمن الوتر مات فهذا الجملة الأسواء أستارا خليته عن سوى رضوان قالوا كما خليته جادا سيرو لله مرديا هنقو وخال أن وارا وأسرارا أمات من ساقا إن فائزا أبدا خلال وإبا لكم لا يرخو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 allahu akbar allahu akbar alhamdulilahi rabbil alamin arrahman arrahim maliki yawmi ddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina sirata almustaqim sirata allazina an'amta alayhim غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله أكبر allah akbar allah akbar السلام عليكم السلام عليكم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 rabbi audu bika min hamashati shayatin wa audu bika rabbi an yahdun bismillahi rahmani rahim wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala haadi al amin sayidina wa mawlana muhammadin al makin wa ala alihi wa sahbihi sawi ridwani wa tamkin ama baadu hada alyawmu yawmu al-iid li kulli muminin muslimin muhsinin said faskuru llaha tabaraka wa taala fihi alhamdulillahi alladi jacala yawma al-iid yawma tawsiatin wa tafrihi wal itlaq والصلاة والسلام على من أخرجنا من سلمة الجهل والشرك والنفاق والإملاق سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه سوي الوفاق وعلى من تبعهم بإحسان في جملة الآفاق أما بعد فهذا اليوم يوم مبارك ولنا فيه شيء فيه لم نشارك فأحمدوا الله تبارك وتعالى على ما جاد به فيه للمنتهى عليه السلام عليه سلاماه bi jamihi muxtafi fa inna hada alyawma yawma akli wa shurbi wa itqi bi fadli man jaada bi fatqi ratqi assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokk yi fi teew yépp ñoo ngi leen di nuyu di leen ndokkeel ci bis bu tedd bii di jiital ci ndokkeel yi ci sunu kilifa yi nga xam ne ñoo nekk ci sunu kanam di leen baalu àq tey ñaan sunu borom mu boole ñu baal àq di ñaan yàlla sunu boroom yàggal leen fi lool di jiital ci nuyoo bi ak ndokkeel gi sëriñ Fallu Mbakke ak sëriñ Aafiya Mbakke ak sëriñ Cheikhouna Boussa ak sëriñ Yuusufa Jenn di nuyit mbokk yi fi teew ñëpp di leen baalu àq di am mbégte lool ci teew gi nu teew ci barab boo xam ni dañu fee teew ngir jaamu yàlla goo xam ni digaloon nanu ko ñu di ko mottali tey te mooy weer wu tedd wii ñu jóge di fàttali lu néew rek ci ab dénkaane boo xam ni ñun ñëpp li ñu ci jublu moo di ak laabire dénkaane googu nag dafa jub ci li ñuy wax jikko yi ndax ku ne xam na ni xutba bii ñu doon jàng li muy li ci sëriñ bi jublu lu dara lu may rafetal jikko rek ak fexe ba nit ki nekk dëgg-dëgg ab jullit nekk dëgg-dëgg ku aji gëm loolu rek moo làmboo xutba boobu ñu doon jàng ginnaaw loolu nag te xam nañu jamono ji dafa xaw a xat ñu tënk tuuti rek ci baati wolof yoo xam ni des koy fàttali sunu bopp waaye fàttaliku jaami yàlla yépp bokk na ci loolu nag sunu ko waxee xam nga xat-xatu jamono ni mu mel ak li xew ci àdduna bi léegi li tasaaroo lool ci li ñuy wax ci mbooleem jikko yoo xam ni dafa mel ni dafa tasaaroo lool te jikko yi eh, li gënoon ci jullit mooy mu làmboo jikko yu rafet yu baax yooyu bokk na ci jikko yi nga xam ne dafa tasaaroo te ba ëpp lool te mooy melokaanu jikko yu ñaaw yi léegi kon nag bokk na ci xeet yi nga xam ni dañu ko tànnoon ni danañ ci waxtaan tuuti te mooy li nga xam ni nit mënu koo ñàkk ab jullit mënu koo ñàkk te mooy ihsaanu te mooy rafetal maanaam nga xam ne lépp loo xam ne danga koy def lum mu mën di doon nga jiital ci ak rafetal bokk na ci jikko yooyu ba tey taawunu te mooy dimbalante dimbalante nag ci diggal nit lu baax dimbalante ci jàppante ci lu baax dimbalante ci diglante lu baax dimbalante ci dimbalante ci nu ko waay déggee waaye na ne kenn ku ne rek mu seet mbokkum julitam mu di ko dimbali te yàlla tax bokk na ci it xusnu zanni mooy rafet njortu julit bu ne fexe ba maanaam sa moroom julit waxtu wu ne ngay am ci moom rafetu njortu rafetu njortu bokk na ci it li ñuy wax mën a muñ bokk na ci jikko yi ñu gën a tàmm ci ab julit mooy mën a muñ lool baaxoo saxoo muñ bokk na ci it yi ñu yi nga xam ne des koy taamu ci ab julit lu mel ni abdul mooy maanu bokk na ci it ci jikko yi nga xam ni dañ koo sopp lool ci ab julit mooy lu wax li ñuy wax doylu xanaatu doylu bokk na ci jikko yi nga xam ni ci jamono ji nag dara gënu ko ci te mooy a asomtu mooy noppi ci lépp loo xam ni moo am amul njariñ jikko yooyu nag dafa nekk loo xam ni sëriñ bi fonk na ko lool ba bind ko ci téere yu baree bari bokk na ci jikko yooyu ba tey lu mel ni yërmande ak tabe tabe dimbal fay dimbali la dimbali sa mbokk ci lu baax ci digal ko lu baax di ko tere lu bon waaye xam ngeen ni tabe tabe nag ajuwul ci ku bari la kenn ku ne xam nga ka nga war a ka nga ëppale nga di ko dimbali te yàlla tax maanaam tabe moom yëggul ci ku bari la lool waaye koo gis rek ci àdduna muy dox am na ku mu ëpp le képp koo xam ni ka nga ëppale nag sag tab daa war a jëm ci moom ak li nga xam ni mooy suturaalante julit ñëpp ku ne sa moromum julit nga di ko suturaal te yàlla rek tax waaye biñ ci gën a euh, sopp nag te gën koo bëgg te nga xam ne lu am solo la ci ab julit mooy dëggu maanaam yooyu yëpp mënoo koo def moom te làmboowoo li ñuy wax dëggu kon nag dëggu lu am solo la lool mooy di jëf li ngay jëf dëppook dëggu li ngay wax it lépp di dëggu saw melokaan it lépp di dëggu ak it bokk na ci jikko yi ba tey mag ndaw ñi ñu leen di yërëm bu baax maanaam toqi ndaw ñi ci diine di leen yar te di leen yërëm waaye ndaw ñiit ñu fexe ba di wekk mag ñi bokk na ci jikko yi nga xam ni dafa bari lool te ku ne war koo bàyyi xel te muy dox lool ci li nga xam ni mooy internet bi mooy sosolante bi waxante lu ñaaw xassante bi weerante bi yooyu yëpp jikko la yoo xam ni ab jullit waru koo làmboo ndax jullit li li li li doon biram mooy muy nëbbal mbooloo moroomum jullitam ay ayibam ba du ko feeñal ndax yonente bi aleyhi salaatu wasalaam wax na ni bépp jullit boo xam ne suturaal na moroomum jullitam yàlla dana ko suturaal fii ci àdduna ak àllaaxira mooy loo yéene sa bopp nga yéene ko sa mbokkum jullit loo yéene sa bopp wala looy teg sa bopp xool ko ba xam attan nga ko bala nga ko teg kenn wax muy wax muy jëf xool ko sa bopp rek soo ko nattee sa bopp ba mu xam ni bëgg nga ko nga doo koo mën a teg sa bopp kon nag mbokk yi ñoo ngi dellu di ñaan yàlla sunu borom subhanahu wa taala ci jaamu yàlla yi ñu fi jaamu ci weer wu sell wii ñu génn moo xam njàngum alquran mi moo xam njàngum xasaayit mi moo xam waxtaan yu am solo yi nga xam ne waa daayira bi doon nañ ko taxawee jërë ngeen jëf loolooy li am solo te ñu bàyyi ci xel bu baax te xam ni loolooy li gënal sëriñ bi te ndaw ci lool rek la war a mën a jëm te mooy ndaw bu tolloo ci góorgóorlu jëm ci jub jëm ci jaamu yàlla dafa war a gaaw góorgóorlu rawatina nag barab yii ñu def nuñ koy waxee rek du barab bu ñuy barkeelu du barab boo xam ne dañ koo def ngir mu rafet waaye barab bu ñuy jaamoo yàlla la barab bu ñuy jaamoo yàlla nag sunu xel dal na lool macha allah ci naafile yi fi doon am ci jataay yi nga xam ni ñu fi ëpp seeni at ñu néew lañ loolu nag day dalal sunu xel bu baax xam ni li sëriñ bi bëggoon mi ngi mi ngi koy am kon nag nañ ci gën a góorlu te fàttali ko bu baax ñi nga xam ni nekkoon nañ fi daaw te nekkuñu fi te yàlla dogal ñu nekk fi te ñaan yàlla mu fekke waat ñu ëllëg kon nag nañ góorlu bu baax te xam ni kenn ku ne ci ñun góor góorlu ci lépp ci jikko yi ñu doon wax ak lépp lu baax ndax dem munta ñàkk te waxtu wu ne kenn ku ne dana la dab foo mën a làqu koo mën a doon ak foo mën a aju dee dana ñëw nga def ko balaa dee di ñëw nag di la yóbbu te it nag mbokk yi ñu bàyyi xel ci ni nit ñi léegi itte yi dafa baree bari ba macha allah seenu jot moom mayetu leen lu bari kenn ku ne ci ñun boo bëggee xam boo faatoo nan la la nit ñi def xoolal ñi faatu nu leen nit ñi def wala nga xool kenn ku ne sab xarit bu mu faatoo noo ko def léeg-léeg nga fàtte ko lu yàgg doo ko ñaanal ndax lan yittee àdduna kon nag comme demagunu nañ góorgóorlu bu baax te xam ni tëddaay bu yàgg la te du jaas te xam ni dara du fa doy ci lu baax te lépp loo fa yóbbu da nga ko mën a xéewloo kon nag nañ góorgóorlu bu baax nekk ci lu baax boole koo nangoo liggéey ak jaamu yàlla sëriñ bi sax noonu la ko wax dafa naa naan jiital nangoo liggéey ak jaamu yàlla kon loolu mënta ñàkk ci ab taalibe mënta ñàkk ci ab taalibe nañ ci góorgóorlu lu baax ñoo ngi jéggulu ñëpp di baalu ak ñëpp di rafet njort ci ni alhamdulilahi rabbil alamin ci yi fi xew ci koor waaye nag waxuñu rek dañoo koor gi dafa jàll ñu daal di tëj lu baax déedéet tëjuñu ko de lu baax du tëj mukk kenn ku ne la nga nekkoon gën ca góorgóorlu ñoo ngi jéggulu bu baax ci jiite gi ndax kilifa yaa ngi fi ne dañuy wax rek ndigal moom mënee su koo bët mu jóge woon ci Cheikh Mouhamadul Fadal ñu ne woon kon nañ ko taxawu waaye ñu ngi koy jéggalu lu baax di leen ñaanal yàlla yàggal leen fi te may leen ak wér lépp yéen la fii moom lu fi am rek yéen la ndax bu seen ginnaaw seddee topp gi day daal di yomb ñëw ngeen fi ñëwoon di fi wéetal sunu borom nekk fi lépp mën na leen fee fekk ndax sëriñ bi moom mooy ñaagal rek te kenn ku ne barab ba nga ne di fa dundal sëriñ bi bu yàggee moo fay yónnee rek ñoo ngi siyaar ñëpp di jël suñu nuyoo di ko teg ci loxob sëriñ Abdul Baaxe Ka mu tegal ñu ko ci mbokki taalibe yëpp di sant jigéen ñi ci taxawaay bi bu baax a baax a baax ci turu sëriñ Fàllu ak sëriñ Afia di sant sëriñ Cheikhouna mi nga xam ni daara ju mag la yor fii bi ñëwee laa ko wax ni ko su fekkonte ni xam nañ ni ku sant Busaa ngi suñ biir duñu jiite ndax loolu sëriñ bi moo leen ko jagleel sëriñ Yuusufa Jenn mu sëriñ Naar ak ñi nga xam ne ñoo taxawee ñëpp bu ñu limee juum imaam yit ñi ngi jël nuyoo yëpp teg ko ci sëriñ Abdul Xaadar mu jot leen ñu ko imaam yi fi doon naafile yëpp bu dee daa daaira bi moom macha allah ndax lii li tax ngeen man ko mooy da leen a fekkoon ngeen di dox ku mu fekk ngay dox nag day yomb ci ñu teg la ci nga dem kon nag góorgóorlu leen yéen waa daayira bi góorgóorlu leen bu baax ci njiital sëriñ Mouhamad Diop góorgóorlu leen bu baax mag ñi am nañ ci yéen yaakaar bu baax a baax yàlla bu yaakaar tas ci yéen da ngeen ci gën a góorgóorlu baax liggéey baa ngoog bu ngeen ma gisee liggéey baa ngoog jumaa ji ni ko waxe woon rek tabaxal ko rek lañ ci am taxawal ko rek lañ ci am waaye ñoog yéen yéen ci bokk yam bu ngeen ñu gisee wéyal leen ko bu ngeen ñu gisul wéyal leen ko la Aboubacar waxoon rek laay wax man kaana yaabudu muhammad fa inna muhammad qad maat wa man kaana yaabudu llah fa inna allah xayun la yamut képp koo xam ne da ngay jaamu yonante bi xam ne yonante bi jóge na fi ku dul kuy jaamu suñ borom nag suñ borom moomu du fi jóg kon kuy jaamu nag jaamul yàlla kuy jàpp ci mbir jàpp ca ngir yàlla bul ko jàpp mukk ngir diw bul ci jàpp mukk ngir bëgg cant bul ci jàpp mukk ngir bëgg ñu gis la waaye def ko ngir li wacci laayi jëmmi yàlla yàlla moom moo fi dugg waaye suñ maxtaa day dem keneen day dem ñëpp ay dem waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu.